شمر فوجات جات جات وقد لباس ما سما جلاي نبلاي نبلاي سوسي نيو توبا جم نم سيار رسول ما جارة doon kilifa jataay bi di Serigne Hassane Mbacké ñu ngi koy siyaar bu baax ca di ko jox wàcc waayam di ko jaajëfalit ci jataay bi nga xam ne ànd na ko ak ñun di nuyu bu baax baax mboolem jàng ko di yi nga xam ne ñu nekk fii ci biir di jël nuyoo bi di ko teg ci loxoy sëñ Mouhamadou Mara Seck mu jàllale leen ñu ko ci mboolem jàngkat yi waaye di santaat bu baax kii ñu yàlla booleel ci liggéeyub Serigne Touba yi wala liggéeyub Soxna Jaara bi nga xam ne moom lañ ko suñu borom nattoo ñi ànd ak moom muy sëriñ xaadim di ko ñaanal li ñuy ñaanal suñu bopp mu yàgg ak wér te mu yàgg ànd ñun jataay yu mel nii ak liggéey bi ba mboolem fu mu ko bëgg a yóbbu rek soppi ànd kook moom ba kenn ku ci nekk li nga xam ne moom lañ séntu ca la tax ñuy ànd ak moom ci ngir xasaay yi di ak ànd ak moom ci liggéey bi nga xam ne ab yan la bu tegu ci ay loxoom mu doon lu woyof woyof googee la koy indi mooy li ñu jàpp ci sunu xol mooy saa su geesoo gis mbokk yi ànd ak moom moo xam soppe yi la moo xam xarit yi la moo xam la waaye di nuyu nag bu baax ki nga xam ne mooy sëriñ maam Cheikh Faye nga xam ne mooy jëwriñu mbooleem kuréel yëpp ngeen di dégg rek day mel ni moom moo nekk ci kanam di ñu teete di ñuy orienté ci lu bëree bëri di waxtaan ak ñun ci yu bëree bëri wax dëgg yàlla di nuyu mbokk yi kuréel bii nga xam ne mooy kuréelu ñu koy roy ci sëriñ bu sell bi jiite ko ci sëriñ Abdou Lahad ñu ko yoroon seen kàddu léegi ñu ngi jël nuyoo bi di ko teg ci loxoom mu mel ni rek tey ab liggéey buñ doon def la ay weer yu bari ba tey jii lañ doon def tey ñi di ko def ndax kenn ku ne xam na ne mbooloo mi ñu de ma faatixul bisri yàlla def Cheikh mu daqaa tudde woon ñu ko mu nekk ay kuréel yu bari fii ci bitim réew ah, bitim réew ak fii ci réew mi mu doon kuréel ñu koy wax fédération ma faatixul bisri lañ doon liggéey ay at wala ay weer bisub tey bii taxoon muy màggalu poroxaan ndax ñoo ko tànnaloon seen bopp ne ci la ñu àndi ak yow suñu xaadim lépp loo xam ne nii lu jëm ca loola la ñu ànd koo yow du ko doxal ni ko bëggee kon tey taxoon boo liggéeyee nag ay weer ba bis ba agsi dafa yell nga toog ak ña nga bokkuloon liggéey ba wan leen na leen lii lañ ca liggéeyoon wala boog lii taxoon ñu doon sonn fenn fu nekk def ko waaye ñu ànd kook jëwriñ ji muy sëñ xaadim mu mel ni ànd nañu jëwriñ ci ci ay barab yu fasanti ko loolu ñu tuddee ngonti poroxaan yi ñu ànd ak moom guddi ak bëccëg suba ak ngoon di ko doxal mboolem foo xam ne ni dem nañ fa ci sopp yi nekk ci région yëpp tatagal nañ ñu dalal nañ ñu saragal nañ la nga xam ne moom la seen at seen kattan mat lañ am akus néew lum néew ak a bari joxe nañ ko ànd koog kon ñoom ñëpp ñu ngi leen sant bu baax a baax xëy na lim bi dina jafe ci ñun waaye mbooleem koo xam ne nii danga bokk ci fédération bi du fukki daayira yi ak ñaar fii ci réew mi yeneen ñaari daayira yi wala nekk ci bitim réew ca benn daayira bi nekk tey ji mi ngi ci jataay bi muy waa Gàmbi waa Mali it ñëw nañ ñoom ñëpp ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di sant suñ mbokk yi nga xam ne ñoo nekk Argentine ñoom it ñu ngi leen sant bu baax ci taxawaay kon loolu dafa jar leeral leen ko xam ne foofu lañ toll nekkuñu nag di def bilan ndax loolu jotagut ci ñun ndax fi ñu toll dañoo toll ci liggéey tam noppeeguñu kon bilan xaju fii waaye li am solo rek mooy liñ daan def ay at lañu toog fii jàkkaarloog mbokk yi wax ak ñoom ngir soññu leen soññ ñi nga xam ne ay ndaw lañ te ñoo ñu bokk ñoom liggéey sëñ Tuubaa bii muy mbokk yi nga xam ne ay daayira lañ daayira yooyu ñu ngi leen di gën a soññaat ci liggéey bi nga xam ne sëñ Tuubaa moo ñu ko boole muy liggéey boo xam ne liggéey bu sell la liggéey bu dara caaxaan du tàbbi la ñu xam ne xasaayit lañuy liggéeyal loolu na dafa laaj ak bennoo ak toppante ak wóolante ak jàppante ba dara luy nuru ak caay-caay wala ak tappale wala lu dul noonu ñu jël ko teg ko fële ca dox ci yoon wi nga xam ne moom la ñu sant muy yoonu jub bi waaye mbooloo muy wax sama bi hablillahi jami'an wala tafarraqu loolu moo am solo ci ay mbooloo yi ànd mbooloo nag buñ dee ànd bu dee juróomi nit la bu dee ñetti nit la bu dee ñaari nit sax seytaan dañu dugg seen biir ngir jax sa ñaari ñoo ñee di ànd loolu ñu ngi leen di dénk ngeen bàyyi ko xel yéen ñëpp ci xam ne seytaane mën naa bañ a amu yoon ci liggéey bi waaye mën na ci amu yoon mboolem koo xam ne nii da nga bokk ci mbooloo moom boo génnaatee fii nga delluwaat ci gox ba nga jóge na nga takkaayuwaat amaat pas-pas amaat yéene ci liggéey bi nga xam ne liggéey sëñ Tuubaa lii ñuy dajale kenn ku ne xam na ne jëmul ci poos sëñ Xaadim mii jëmul ci poos ñii ànd ak moom lépp fii la dem ci kër gi ak ci mbooloo mi nga xam ne ay gan lañ ñu jóge fu ne ñëw fii fekk suñu fi ngir ñu terale leen ko ndax loolu mooy yenn kon loolu ñu ngi leen ko bàyyi loo xel bu baax kon si ngeen delloo na ngeen gën a góorgóorluwaat gën a jàppantewaat gën a waat te xam li ñu boole sëñ Tuubaa la dara ay caaxaan nekku ci